waa marché bi euh, comme niñ ko euh, déggee ci médias yi guddi euh, Kazu Rajab 18 février la nuit du 18 au 19 février samedi bële passé la fa préfet ñëw ànd ak police donc déguerpir cantine yi nuitamment ñu bëri dañ leen woo fekk ci ay ñu ngi si ay nelaw wala ñu ngi si màggal ga donc ne leen seen cantine ñu ngi koy dajji noonu lañ ko yëgee buñ ko defee biñ ñëwee bëgg a jël seen bagage yi préfet bañ police tee leen fekk encerclé nañ foofu am na ñoo xam ne jotu ci sax mën na ñëw sori woon nañ tellement ils étaient en léegi ñu ko defee nag euh, préfet jël bagage yi takk ko si ay saako euh, ak ñoo xam ne seen ay xaalis parce que loola bett man la yow yaa ngi wàcc yor nga sa cap yu banque wàcc na donc sa tiroir nga ko mën a denc du am benn sécurité nga koy ba sa kër donc euh, yooyu yëpp ñu takk ko say saako liquide beeg xaalis beeg Euh, papier euh, état civil yeeg document ak bagage lépp takk ah bagage day leer ne am na ci bëri yoo xam ne day yàqu parce que ay bijoux lañ doon jaay matériel électronique ay montre ay lunettes yooyu suñ ko takkee saako def si ay camion bogo bogo yóbbu day yàqu. dina am ci yàqu. waaw ah, dina am ci euh, yàqu balaa moo ñëw di déguerpir yenn cantine yi amul woon benn préavis bu nga xamante ni defoon na ko pour aviser leen yéen ñi fay liggéeyee. waaw xam nga coow li bari na si loolu ñi naan euh, avis am na ñi naan sommation amul mais damay leeral ne Mor Talla monsieur Mor Talla Tine mm. maanaam moom gisuñu sommation am. xam nga tey soo génnee nit maanaam tey munoo tey ñoom sommation ba ñuy wax bi préfet euh, sous préfet Djibril jaaro brandir sommation ba ñuy wax sommation la boo xam ne nii tey comme tey ñu ngi en 2023 nga ne ma naa la génnee génne cinq xam nga loolu ñun jàpp nañ ne loolu du sommation moom sommation boobu préfet Mortalla Tine sommation ba muy wax moom fekk ko fi sax kooku ba jamono boobu Aline Badara Samb moo fi nekkoon comme préfet donc ñun on peut que mu de loolu amoon ay pour parler Alioune Badara Samb mu ngi doon wax ak cantine euh, di wax ak occupants yi bañ organiser woon ay rencontre entre mairie ak euh, préfecture ak commercant yi bañ naan léegi nañu xool passage bu ñuy bàyyi pour nga xam ne camion suy ñëw dugg dina mën a dugg génne bañ tàkkooroon si 6 mais par la suite waxtaan bi dafa mujj rek yàqu léegi nag waxtaan boobu su yàqoo ba préfet Alioune Badara Samb delloo dossier bi ne leen waxtaan dox wax borom kër gi ne ko léegi waxtaanal ak sa riverain yi parce que seen ay dëkkandoo ngeen waxtaan leen pour ngeen seet solution boo leen juboo xam nga tey commerçant yi dañuy jàpp ne ah kon ñu ngi en pourparlers mais préfet Motal li mu def mooy comme jàpp ne ne léegi ñi àpppa dafa jékki-jékki rek comme ñaar ñu doon xeex rek ne ok léegi juboo am na wala yéen i waxtaan nga jékki-jékki rek jël paaka jam jam jam jam sa beneen adversaire noonu la ñuy def mais est ngeen teg seen ay yoon may na leen ngeen ngeen teg fa seen ay seen ay cantine waaw loolu loolu question parce que ñu bëri ñun avant invitation bi dafa baax ñi mën a askan wi parce que question yi dafa bëri xam nga ñun fi ñu teg cantine yi euh, loolu mairie moo ñu ko jox avant mairie di ñu ko jox loolu c'était le gouverneur Aline Barra Ndaw loolu man boobu judduwu ma sax am na ñoo xam ne nii ay place am nañu ko fa depuis 72 73 74 cinquante ans man boobu judduwu ma donc la leen euh, autorités yi mayoon na leen teg leen fii ñi fay seeni i di fay seen i ay impôts di fay seeni i ay taxes nekk en règle donc mairie comme moom mooy gérer voirie bi donc ñun on était trop toujours en collaboration avec la mairie dañu dégg ñoom donc place yooyu de mairie daggul autorisation boobu noonu ba wax ñu ne ne mënatu leen fi teg donc ñun dañuy jàpp ne rek on est dans les